kon su may tëj dama leen di wax ne rek ngalla bu ngeen demee jigéen ñi war nañu mën a xam ne ñoom ñooy ndey boot ñu nàmpal fekk duñu tus yéenay isin bi defar nit te doole taxul doonte dem ngeen feneen di fa def loo xam ne ñépp ko mën donc yéen na ngeen fexe ba lu mu gàtt gàtt ngeen saf yaay c'est important yéen a góor ña ci jaamu yàlla wala li leen yàlla sant